لأملأن جهنم منكم من حقا منهم أجمعين قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين mu yéen ñi mu ko jaral ba ngeen koy nangu seeni soxna ak njaboot yëpp loxo jar nay ngi nii إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما bu ko defee kon yéen ñëpp yàlla na leen yàlla suñu borom boole teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ba ngeen dugg fa ngeen bëgg a dugg fa ngeen ba léegi xam leen yaari kër yi moo fa nekk àjjana ak sawara képp karna ba rek du fees xalima ga du jeex te karna bu daanu fii xalima ga daw foofee te bu yomal xiyaamee lépp la ñuy raatawal suñuy daay ak suñuy bàyyi nag bëgguñu rek te kër gu bon nga kër gu baax la ñu yéene duñ la ko yéene yéene kenn ku ci nekk yaa ko ma liggéey sa bopp bàyyi moo xoon ceernam ngi mel ni bool bi saa su bindi jaxataaja añ bi yéen ñëpp bëgg naa ngeen suuf bu ma nee nii sexal la nag falaa mën a yem wanaa su mu ñëw ci deq bi nag kenn ku ci nekk yaa ko mënal sa bopp te xam nga ne bàyyi ba dum déntu nam ja wana bi tànk xaaxam ba ñii di ko dugal moo tax ma yaakaar lu ma sama baay digal ne njariñ a tax bu digal ma ko gannaaw baay digaloon mën naa leen ko ku def nag yaa xam ku deful yaa xam kon ku ci mar toog ci ne ut sa but li na lool bismillahi rahmani sa doq yàlla noonu yàlla may paanu jàmm guddi ga mucc ba guddi mën a daan egg ca lu nekk ci ndox bi bu dee luy dox wala taq-taq lu moo doon dugg sa biir ku ci génn sa kër foo mën a tee jëm yaa xam dëkk bi da ngeen da xam ne dox la ana ci mbedd mu jox la la ñuy lekk loolee balaa dugg sa biir neel ko wër si famille na wàññi dara bàyyi moo xoon ceerno boo géetee la waa jox ci mbedd bala nga ko lekk na nga wax lii nag dinaa yow gàtt ku ko ci mokkal na sawara bàyyi ma ko bindal li ma jarno de ko bismillahi rabbi xanii xaddan tu mina niiraani wal ahli wal awlaadi wal jiiraani bi jaahi xayri sil wara filaali wa filmaali allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ku ko ci baam ko ne mucc nga yomal xiyaam ba mbokk mu la jiitu fee ni jëm nga yéene ko jàmm lii dafa yomb lool bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad jàng ko ñeent fukki yoon nag jaara tuuti wàq ba jot na ci ñaan gi sax ma ci yoon bu lor bi dalee ci ñaan gi fekk na ko fa mu tëdd yool bi nag yow mi ko doon jàng yaa ko bàyyi ma kon ceerno de ko defal sama di jugeen lu yàgg ku ciy jóg neel naa tey nàkkal kaw daal di jóg taxaw te kaw nii di ndeg maay ngeen di ko moytu tax na ngay séentoog la tëdd ni mbàpp defee lu baax ko tax a bon maa gën bu xiinee moo xam dal taw moo xam taw kenn xamu ca ne nii taaj ko maa mën na la koo duyo la paan nga di wala ngaan kon xam nga ne njaaxaa naay moo gën defee naay ku ci am sa doom di toll nii ëppagu la doole tëgu la boo ko dee sàkkol njariñ bëggal ko lu baax mu yóbbu ko ca daara ja mu jóge ca daara ja ñëw sa kër xaw ma day daal xamit xaw ma daa ko lay njariñam bu asamaan setee mu yeewu dëpp kaasu kafeem dara méttiwu sant comme naa bu jikki ba léeru ca taatu garab ngay nafar moo gën ca moom nafar moom day téye fët la nga jàngoon bàyyi ko ci mbedd yi muy ba añ mu ñëw aña añ ba regg dellu ca la ko neex day la màgg ba day la théâtre ba amu ci lenn luy tax a dundub kaw ku ci tàmbalee ba si mi te doo jëlal din bu yàggee na wàññiwul dara ab julit na ko yeyoo na ko ku yar sa doom ko wàññi bëggal ko mujj rafet mbaxal yor ko koy tere bàyyi moo xam jeex na lii na mujj moomu foo ko sulaw ci xal yi naaju tàng-tàng làq sa jant bee ba na lay làq yoon àjjana day làq yoon àjjana yàlla nanu yàlla suñu borom naa jàmbaare lool waaye da ngay xam ne moom li mu jàmbaar jàmbaar rek ah saa mat la bu sifa yi moo mën a docteur kon dee ko jàng suba di ko jàng kon mi ngi mel ni gàllañ ko tak bàyyi ma kon ceer bu ko jëral benn yoon dànku ma gisuma la woon kon ceer li ma ci doon ni ma ko yoonu suuf ak godron bee ñooyam foo mën a li ma lay ñaan ngir yàlla bët dina jiitu tànk bi nopp yi baal ci ginnaaw boo déggee luy kërën kërën yi rek bu ñëw ma yëg nag morom laaj daan ñëwal paas morom daan ñëwal paas kenn du ci gis sa morom te yii ngeen bu tara di crochet buñ bamb sa yeex baal ma di ko paas te baal ma boo ko déggee boo def julit baal naa la da nga tey wan la ginnaaw labbale fasam dem yoonam kon pratiquement ba xam ne yaa koy des kii di maam mooy kii sàmm ñëpp a ci boole fàggandi bitig yaa ko bari marchandise bu fa dem mu la yeel boobu bitig man ceerno xam ma ko bu yee baaxee yee bon sa baay seet ya baax mu teg lañ yow nga jóg seen xàll wala neex nga awte ngirum maas te dañuy tolloo waralu tug maas koo fi mën a gis ñëpp yam ñun ñëpp la ñuy taxan képp kuy taxani ca bëggu say ba sa baay doon taxane fa ngay raasaatoo mooy tax say woo mën a matu say bàyyi ma xoon cer na ma ne ko mbag ma tubaab bi yàq na réew mi léegi kenn di ti yónni sa doom daanaka boo toogee fa nga toog gégggggggg daa di waxe waa Ndakaaru bu yàgg ñu ne suñu yaay yi dematuñ ca goj rangé bi sama classe bi ngay gis rëbbeetu ñuy jaar rëbbeetu ñuy xojal bu woo sama rak doo jaar ciw kilo eh e booy e grand da ngay dégg te bàqara ba naa si boo ko tegoon fii man na maa di ko naan ma da sama doom